asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu te di leen balo àq di leen bal ak dellusiwaat rekk ak yéen ci li nga xam ne ñoo ko bokk te mënuñu koo seddoo te muy suñ njariñul tey ak ëllëg te loolu mooy yoon wi ak waa yoon wi bokk yi sëriñ Tuubaa de ku yàlla setal la ci aw askan ak ci aw melo ak ci jikko ak ci juddu te loolu moo ko boole ak sunu maam ya bi mu wootee fekkoon na sunu maam yi nekkoon ci ay daara di jàng fekkoon na it ñuy jéem a kër këri ci yoonu yàlla wi fekkoon na it ñuy wattandiku kemtulaayal fa seen kàttan toll waaye yoon win jaar dafa nekk yoon wu gudd wu bari woon ay pakk sëriñ bi dikk na leen yoon wi ngeen jaar de baax na lool waaye dafa gudd te bari ay pakk ku bëgg yoon wu gàtt wu lay àggale ci yàlla xam naa yoon woowu loolu moo taxoon daaraam jooje xëy def ñaari xaaj bii xaaj continuer ci yoon wu gudd woowu ne leen ci leen fekkoon seeni maam ak seeni baay benn xaaj ba yàlla dimbale ñu ñëw ne sëriñ bi ñun yoon wu gàtt wii te jëm ci yàlla mooy wi ñu gënal sëriñ bi daal di ànd ak ñoom soobu ci yoon woowu loolu it biñ ci sooboo xamuñu doxin wi xamuñu it nu ñuy def ci la yàlla baaxe ñëpp jàmbaar ju mel ne maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin mu ñëw ngir wan nit ñi doxinu yoon woowu yi yoon woowu nag bokk yi mooy wan yoon mooy yoonu teggin ak ndigal bokk yi kenn nattabliwut ne jàng alquran def ay salaatu ala nabi julli julli juróom woor weeru koor wi natt asaka loolu sunu maam yi nga xam ne ñoo jóge woon ci seen keppaari daara ya ñoo jógewoon ci seen kër ya fekk Sëriñ Tuubaa ci loolu lañ nekkoon kon bi ni ñëw am na leneen lu leen tax a jóg lu dut loolee te loolu kat ndigalul yàlla la loo xam ne wàccut benn jaan benn bu ko wàcc sa digganteeg sa borom la jaan bu ko jëfee itam sa digganteeg sa borom la waaye nag mayewut àjjana mayewut àjjana ndax kat saxaaba yi saxaabatu rasul yi ñoom nii lañu àndee woon ak yàlla ak yonante bi alayhi salaatu wasalaam te boo jàngee ci xad aflaha almuminuuna allazina hum fi salaatihim xaasiuun ba aaya ja jeex danga xam ne saxaaba yi nii rek lañu àndee woon ak yonent bi waaye teewut nag ñu bëgg lu wuur ak lu dalum xel tax ñu wëlbatiku wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam ci jaayante jaayante googu mooy li leen yàlla tegtaloon ne hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min azabin alimin wa tujaahiduuna fi sabilillah loolu moo tax ñoom ñu xëy jaayante inna allaha stara min almuminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna loolu it bañ ko defee ca sóobu ca te jaar ca yoon wa ca dëggal ko lam leen jural mooy fastabsiro bi bayhikum allazi baayaxtum bi wa ko huwa alfawzul azim kon mbokk yi lii rek la Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad doon wax ne yoon wi saxaaba yi jaaroon ak yonant bi moom la Serigne Touba ñëw fekk yoon wa far gayi mu maaselewaat kàmb ya gajjaat gajj ba leeralaat ko noonu ku bëgg dem yoon waa ngi nii te loolu mooy yoonu ndigal mbokk yi bu fàttee fàtte ne jaayante ak Serigne Touba ku jaayante ak Serigne nag la nga jaay te fas yéene jot ci njëgg moomatoo la nga jaay bokk yi nañ wor maalal sëriñ Touba bokkam yi nañ wor maalal sëriñ Touba dëkkam bii nañ wor maalal sëriñ Touba njabootam gi li xew léegi kat bokkutoo nag la mag ña doon jàngale jàng ba wann say téere sëriñ Touba waxoon na ne nit ki bu juddoo da nga koy jàngal ba mu ne ar te ba ne ar benn fànnu xam-xam desu ci moo taxoon mu ne wut xam-xam jor na dem ba siin loolu moo waral it mu xam ne ku ñu war a jàngal ba nga ne ar war na laa bindal téere yu bari sëriñ Tuubaa taalifal ñu téere yu bari yoo xam ne mënee su koo jeexal waaye ku ci xam yu bari rek da nga jàng ban ne ar waaye bam mu noppee ci njàng ma daf ne su ngeen ci noppee nag ya nangeen leen yar bañ na nër loolu moo indi daaray tarbiya bokk yi yar di su ko jëlee ci ab téere yar day laaj taqoo ak ku yàlla yar mu teg la ci aw yoon bul def nii bul waxe nii toogeel nii xooleel nii demal fee bul dem fee loolu bokk yi jëf lay doon kon nit ki boo ko jàngalee ba noppi da nga ko war a yar soo ko yaree ba noppi soo bëggee mu mën a jariñ boppam jariñ am réewam danga nga koy yee loolu moo taxoon Cheikh dul Fadal wax ne sunu maam Thierno wala boog sunu baay Thierno jàngal nañ ñu bañ na ar mu yar nu bañu na nër mu yeeñu bañu na jar bokk yi nit ki boo ko jàngalut ab ab dof la soo ko jàngalee ci yaroo ko lu yàq ci réew ma moo ko yàq ndax aw làmmiñam dana rëy te xam dana bari dana ko mën a layal mbokk yi mboolem ñi fi sonaloon diine lislaam mbooleem ñi fi sonaloon nit yàlla yi dañoo yëy téere yi ba boo demee ñoom ci wàllu téere yi da yaakaar ne kii kenn mënu koo yey waaye lu cay topp mooy ñàkk ab yar kon nit ki boo ko jàngalee ba noppi da nga ko war a yar soo ko jàngalee te yaroo ko du baax soo ko yaree te jàngaloo ko it du am benn njariñ soo ko jàngalee yar ko te yéewoo ko it du am benn njariñ kon dañoo war a boole ñett yépp muy jàngal la ak yar la ak yee la te loolu ci daara tarbiya lañ ko doon amee mbokk yi loolu moo tax Serigne Touba sonn ci am jàngaleem waaye yoon wi day yoonu teggin di yoonu worma mbokk yi ñu ngi bëgg xotti teg worma yoon wi ñi ngi bëgg a ñàkk ay teggin delluwaat ca daara yi nga xam ne ci lañu Serigne Touba jële woon mbokk yi bu ñu toogee ba sëtub Serigne Touba nga ñeme koo saaga nit ñi dem ci réseaux sociaux yi di di di yëddu ay nit di jël seen ay téléphone di jël seen i son di ko jàllale ci whatsapp yi ak ci facebook yi mbokk yi ñu ngi yàqante te Serigne Touba kat noonu na woon na nga suturaal sa ayib ayibi jàmbur kemtulaayal ni nga bañe kenn xam sa ayib te bokk yi ku tëdd ci sa ngegenaay gegenoo ko danga xam ne am nga ayib yoo xam ne bëggoo sax sa rakk ji topp ci yow xam ko wala sa jabar xam ko wala sa baay xam ko kon boo wëlbati ko dem di yëddu nit ñi ak di xam seeni ayib di ko weer ci wee média bi ak di ko weer ci réseaux sociaux yi bokk yi lañ sëñ Touba jàngaloon wàcc nañ ko sëriñ Touba jàngale na ci naxajul xadaa alxaaj te nee na mooy bi ma wootee mag ñi da wuy si ma te xamuñu fi ma jëm dañ nañu ana fu nuy jaar sëriñ bi ne leen bunt bi ngeen di njëkk ubbi daal mooy buntu teggin loolu moo taxoon mu wax ne danaa jóg ci bu gaaw tontu lenn ci murit yi nga xam ne laaj nañ ma laaj boo xam ne dana leen amal njariñ moo tax ma sadd ay way jëme ko ci ay teggin sëriñ bi nee na képp koo xam ne bëgg ngaa jóg jëm ci yàlla te àndoog ay teggin yow xal xalset ngaa gàllankooru te doo am la nga bëgg moo tax mu ne yéen taalibe yi dénk naa leen ngeen xam ne wax lam bi anna al adaba sinatul aalim sëñ tubaa nee na teggin mooy takkaayal aji aji aji xam wala boog mooy li gën a seer ci aji xam nit ku buy dem waajtaayam waajtaay yi mu war a waajee pour jëm ci yàlla sëñ Tuubaa nee na mooy mooy teggin mooy kuy xam ak kuy lu ak ku lewet ak kuy lewet lewet lu comme ci man di doon sëriñ Tuubaa nee na takkaayul xam-xam boo ko takkaayul wut doo mën a àgg ci yàlla moo tax mu wax ne aleykum yaa yaa masara tulaab bi yéen mbooleem taalibe yi nag na ngeen xam ne dénk naa leen ngeen sukkandiku ci ay teggin te yow ma ci dénk leen dama leen koo dénkaat dama ko leen koo dénkaat kon day mel ne ñaari yoon lañu ko sëñ Tuubaa dénk ngir ñu mën a sukkandiku ci ay teggin boo delluwaatee ci téere bu mel ne euh, jësbatu sixaar wala yeneen yi mel ne ñoom sëñ Tuubaa ngi naan euh, naka diine ñaari xaaj lañ yoo xam ne wala boog ñetti xaaj la yoo xam ne danaa ko biral diine dafa am ay xaaj benn bu mooy islaam imaan islaam ihsaan waaye dafa wax ne dénk naa leen wala boog bi jëkk ci diine lislaam mooy gëm yàlla gëm ay malaayikaam gëm la ci aju lépp gëm àjjana gëm sawara gëm mbooleem yonant yi waaye lu ci sëñ Tuubaa gëm dogalu yàlla ban dogal mooy mooy bu neex wala bu naqari ak fu mu mën a rote fu dogal ba mën a rote bokk yi bokk na ci gëm yàlla mooy gëm dogalub yàlla ci nit ki gëm dogalub yàlla ci li yàlla def ci moom waaye nit ki bu yàlla defee ci moom ab dogalam donte da ngeen a maase donte da ngeen a bokk baay donte da ngeen a bokk ab dëkk donte rëwu la donte yaa ko raw waaye nga ne dogal bi yàlla dogal ci moom daal def ko mu nekk njiitul dëkk bi neexu ma wala baat bi ko yàlla jox dëkk ci dëkk bi neexu ma bu boobaa kan nga attaqué guerre mooy suñu borom subhanahu wa taala te loolu mbokk yi ñépp ko war di moytundiku mbokk yi Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul soññ na ci ñun lool ci lu jëm ci moytundiku yàq derub doomu aadama mbokk yi yàq derub aadama doomu adama bari na lool Sëriñ Tuubaa nee na du du yell ci kenn ku mën a doon ci ngay yàq derub nit bi moo xam bi xiibatin aw xasfin aw satmit jala wa yastaxilu kullu xirrin akala la wax maanaam moo xam nga yàq ko ci jëw ko wala nga xas ko wala nga ŋàññi ko bokk yi seereel nit ki loo xamante ni bu toogoon doo ko ko waxal sëñ Tuubaa nee na bu fekkonte ne bi daa toog day mooy ëpp lor waaye bu fa nekkut nag na nga xam ne danger booba ba ngay wanaasu lor wa na nga xam ne yaa ngi lekk morsab ndawal boo xam ne bu reesee ci sa biir ku yàlla bind mun laa dem sa war a yi nañ del delloo si waat xel delloo siwaat sunu sunu aada delloo siwaat sunu cosaan xam ne réseaux sociaux yi nga xam ne xew na léegi bu mag ñi daanañ wax ne diw de dafa wax bañ sexal ko ay laar waaye bokk yi booba de du nit ku jëfur du nit ko leneen ndakate ay laar mooy micro yi nga xamante ne bii moom lañ ñuy tàllal nañ moytandiku micro yi te delluwaat ci lañ ñu jàngaloon ana lan lañ xamee woon ab murit mooy ab yar ay teggin ak déglu ndigal bokk yi yoon wi nga xam ne ci ba ko Iblis wàccee ak garaat bu rëy ba mu amoon sun borom subhaanahu wa taala da koo alak ba ku ànd ak moom mu tàbbal la a yoon woowu mooy yoonu ñàkk topp ndigal bokk yi moo taxoon sëñ Tuubaa ne yéen murit yi yoon wii ma leen xàllal te muy yoonu bees wi mooy yoonu ndigal laa tafxalu shay'an bi xayri idni fal isnu shartun fi xabooli sani kon bokk yi ginnaaw yoonu ndigal la ki wërta joxe ndigal daa war du diglu ndigal ki wërta joxe ndigal daa war di diglu ndigal yàlla tànn nit jiital ko ak nu mu ko tànne yàlla jox nit daraja ak nu mu ko ko joxee yàlla jox nit ki alal ak nu mu ko ko joxee nga ne alal ji waru ko woon a am lii la waroon a am kii ka liggéeyul dara xëyut gontut maa war a am lii loolu yàlla nga attaqué guerre yàlla jox nit daraja ca tànnut boppam nga ne lu tax yàlla di ko jox daraja bàyyi ma fi man mi nga xam ne maa juddoo dëkk sàngam maa mel nangam attaqué woo ko guerre yàlla nga attaqué guerre bokk yi nañ warmal sëti sëñ tubaa yi sëriñ tubaa duutu dellusiwaat di moom jamono di dox ñu di ko gis sëriñ tubaa fa mu nekk liggéeyal na yàlla ba noppi ay doom la fi bàyyi woon doom ya jeex na ay sët la fi bàyyi ku dul ku dul sëñ tubaa say sët dana mas a raaf ba kenn duutu la tudd sëñ tubaa nag li fekk àddunaa ngi dox ku sant mbàkke dina ci kaw suuf sëtub sëñ tubaa di am baat di yilif mbooloo bokk yi loolu bu ñu leen ko iñaanee seen liggéeyub maama ba sëriñ tubaa di dem ci géej gi sëñ Ablaat nee na fa mu taxawoon di ñaan ku nekkoon ci ginnaawam di wax ami nekk fu te sëñ tubaa kat du defar sun maam yi defar sun baay yi fàtte ay doomam fàtte seeni sët sëñ tubaa ñaanal na boppam ci ay doomam ñaanal boppam ci ay sëtam ñu gis nag sikku sëti sëñ tubaa te bàyyi suñ sukki bopp ndax bokk yi suñ bàyyi ya wala suñ maam yi dañoo gën a farlu sëñ tubaa ba defar seeni doom defar seeni sët te sëñ tubaa mun a defar ay sëtam ak i doomam bokk yi maa ngi leen di jéggulu di leen balu àq wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu